affaire raffinerie bi ci la bàyyi affaire raffinerie mais ñun sénégalais yi on ne ya des élites ñoo xam ne dañuy toog fii ne oui monsieur 15 pour cent xamuñu lu tax. lan moo nekk ci biir mais par contre monsieur Tamba. oui man dama jàpp ne les sénégalais sont capables de comprendre. pas tous malheureusement non xaaral ma ñëw. waaw pas tous parce que on on dit que la raison est la chose au monde la mieux partagée. oui on est d'accord. capacité de discernement jàpp naa ne sénégalais yu bëri. am nañ peut-être euh, am na ñu xaw a kii mais majorité bi am nañ ko. Mhm. am nga parfois. Hmm. vous les politiciens aussi vous avez un problème. pas dans le sens péjoratif du terme hein, je dis politicien parce que hmm. voilà des gens. a qui font de la politique ah. je parle de ça. Mhm. da ngeen am benn préjugé par rapport ak. citoyens yi askan bi. les plus intelligents. vous, vous pensez que parfois ouais. les gens ne sont pas capables de comprendre les combats que vous menez autres man dama jàpp ne. Mhm. affaire 15 pour cent yi ngay wax nii monsieur pour cent et cetera. ak idée l'idée géniale. Mhm. je je trouve cette ah idée géniale. Mm-hmm. parce que ça aurait été bien présent Abdoulaye Wade def fi raffinerie. Mm-hmm. je trouve que lu baax la. Mm-hmm. en ce temps la c' est que moo tax yéen parfois vous perdez le lien avec les citoyens avec le peuple. maanaam en matière de communication. tey man dama jàpp ne beaucoup de Sénégalais auraient compris cette idée la que Sénégal président Abdoulaye daf ñu bëgg indil une raffinerie bi nga xamante ne daf ñuy permettre ñu am. n'est-ce pas ay jumtukaay pour peut-être mën a doxal suñu industrie suñu courant bi dox coupure yi sonaloon nañu régime Abdoulaye Wade trop sax les coupures d'électricité on a vu les émeutes de l'électricité donc yooyu yëpp mënoon na indi benn euh, euh, nan la benn adhésion de la part de la société ou bien de la part du peuple ñu xam ne kat suñu président ñee peut-être dañ koy jógal di ko xeex pour des intérêts stratégiques mais ñun on a compris ce que le président veut faire mais malheureusement vous gardez l'information pour vous. Aujourd'hui que vous avez expliqué sur ces 15 ouais. vous voyez qu'on a compris. Ouais. Non, je suis d'accord. nous ne sommes pas des politiciens. Et on pense pas être plus intelligent au mm. Sénégal. Mm. Donc dama parfois aussi ce rapport là damay xaar yéen politiciens yi duñu communiquer bu baax ngeen ñuy wax qu'ils disent li am. c'est ça parce que bu ngeen amee adhésion. oui mais même sur le cas Karim Wade y a eu beaucoup de euh, confusion. y a eu beaucoup d'incompréhension parce que au bi ñu yóbbee Karim Wade mais parti démocratique sénégalais doo ci woo kenn. ba jot ko ba yi nga doon jot suñ la wuyoo. je rappelle très bien jour boobu presque on a fait le tour. ñi ma xam PDS ñëpp woo naa leen mais kenn waxul. après lan lañ lay wax c'est c'est c'est le minimum d'information qu'ils te donnent c'est-à-dire bon ñun ah, dégg nañ ne dañ ko exiler loolu lañ si am mm-hmm. alors que tey yow li nga wax ni ñoom xamoon nañ ko xamoon nañ ko nañu ko wax askan bi e loo xamoon nañu tam xamoon nañu tam euh, dañ ko chantage pour mu génn kaso bi ah, voilà Bibo Bourgi yéen ña ngi fàttaliku mm-hmm. dafa feebaroon temps boobu ñu génne ko liberté provisoire bi ñu ko nee génneel mu bañ ñu dem jëli ko jëliwaat ko dugalaat ko kaso. tous les jours boo ko boo doon set Karim il était pas bien ñu ne ko bu Bibo Bourgi dee ci kaso sa responsabilité la. parce que moom moo bañoon na génn Karim Wade demul sax këram di jël ay yërëm dañ ko jël dugal ko ci avion euh, yóbbu ko. Mhm. c' est comme ça que ça s' est Karim Wade bu bëggoon. il voulait pas partir. il voulait pas partir il voulait au moins su ma génne jabaram mu ngi fii ci Yoff armel Yoff mhm. mu dem ziar foofu balaa mu dem foofu mu dem gis sëriñam c'est ça qu'il voulait mais ñu ne ko doo def ñu génn ko dem yóbbu ko lu ñu ko proposé bu yàgg yooyu c'est des choses yoo xam ne tu as raison il faut que gars yi lu bëri président de la république proposé na Karim mu ñëw nekk premier ministre am. Macky Sall mi oui plusieurs fois. ci loolu problème boobu moo tax peut ñu bëri ci ñoom ñu rocce ko dem ci gouvernement bi parce que le but c'était que PDS mu bokk ak parti démocratique ak APR. oui mooy la fameuse. Euh, retrouvaille retrouvaille libérale mais il a toujours refusé. ñi ñi bari dañuy wax ne PDS euh, mun a euh, lu tax mu dem ak euh, PD assemblée nationale pour voter yenn loi yi ça a été leur loolu mooy seen identité. ñoom c'est pas des extrémistes ci retrouvailles oui mais parce que parce que toutes ces personnes là quand même oui bien sûr. kon il était pas d'accord il n'a d'accord Karim six mois avant bu mu duggee kaso bala mu def six mois dañ ko proposé woon mu bàyyi le compte de Monaco. ñu bàyyi ko mu transiger comme les autres ñu bàyyi ko mu dem mu mu bañ mu ne ko su ma transiger ça veut dire que je reconnais que xaalis bi j'ai volé il a refusé plus d'une fois donc am na yu bëri yoo xam ne peut-être que là je suis d'accord avec toi am na information yoo xam ne dañ ko war a joxe waaw dañ ko a joxe on ne donne pas les informations même gouvernement souvent ça arrive hmm. c'est-à-dire gouvernement day def benn affaire bu rafet ñu am ci échec ñu ruus ne am na échec ñu fabriquer ay ay chiffres alors que c'est important de dire aux aussi j'ai échoué jëm naa ko def j'ai échoué mais loolu c'est je suis d'accord avec toi transparence la mais mais mais xam nga eh, Cheikh. xam nga hmm. suñu jafe-jafe mooy la. Hmm. souvent yi ñu jël comme eh, responsable communication ci ministères yi ci parti politique yi ci gouvernement c'est des journalistes. oui mais du journaliste mooy communicant. Hmm. loolu beneen métier la gis nga ñi les les journalistes yi nga xam ne def nañu philosophie en général ñoom boo leen jëlee comme journaliste ils sont bon en communication. parce que lan mooy communication. mooy trouver du sens. parce que quand même man xam naa ne peut-être ñi fi nekk depuis indépendance contre naa leen. mais gënuma leen nekk sénégalais. absolument gënuma leen bëgg réew suñu bugg suñu mënoon tey def en sorte que sénégalais yépp am liggéey ñu def ko suñu bëggoon tey Sénégal nekk mel mel ni France ñu def ko seen mais loolu bëgg nañu ko mais lu tax ça ne marche pas loolu effort boobu souvent duñ ko def parce que on est toujours en train de dire que waa ji il est mauvais parce que il est au léegi d'ailleurs vous voyez ces jours-ci tout le monde est en train de partir ñoom ñëpp ñu ngi daw dem ci ci Jomaay mais ñooñu ñëpp ñoo doon xeex booy booy bu ñu daan xeex ba ñu faat leen wala ñu gaañ leen ñoom ñoo leen doon wax ne di leen xas ci journaux yi ci rajo yi nekk ci ay réunion di complot ci xale yooyu tey tey xale yooyu seen sacrifice ñu ngi bëgg a ñëw profité ci donc yaa a un problème en fait tout à l'heure c'est pas nous n'avons pas de problème avec mm. les mm. ñun suñu problème mooy les élites élite intellectuelle bi mooy le mal absolu hmm. parce que nit trop aliéné cest à li nekk suñu bopp nekkul cest dafa méngawul dara ak hmm. mooy suñu réalité yi hmm. nga xam ne su su nit demee ba jàng am baccalauréat nekk université nekk ingénieur pour moom tubaab la day xalaat comme tubaab day la preuve keroog benn jour ma ngi ko doon wax sa sama sama benn copain dañu demoon ci benn restaurant bu mag bu ñu lekkee ba pare ñu bàyyi foofu ay 700 francs ay mille francs pour boire. Mm-hmm. boo ñëwee tàngana wala nga ñëw ci mama maman yi jaay ceeb bu la mm-hmm. desee sax 100 francs nga koy sonal. doo ko bàyyi wecc ma c'est vrai. alors que maman bi lu mu lay jox ak njariñ bi bi muy jël ci xaalis boobu moo ëpp njariñ bii nga xam ne ki restaurant boo xam ne da ngay dépenser 20 000 francs wala 30 000 francs parce qu'on est devenu on di nekkutuñu peau noire masque blanc nekkutuñu nas nit ku ñuul on on pense comme les blancs. on agit comme les blancs loolu mooy suñu jafe-jafe et donc je pense que c'est un effort à faire mm. malheureusement amuñu jot di xóotal débat yi comme aujourd'hui je vous remercie vous m'avez donné l'occasion ma gën a euh, leeral affaires yi mm. di gën a développer mm. mais souvent on n'a même pas ce temps là boo ñëwee ci plateau yi dañ la bëgg a tënk eh, waxal lii waxal laa boo wax oui ou non donc finalement le débat devient débat sur Karim le débat sur euh, le conseil c'est-à-dire pourquoi les hommes la politique ça ne marche pas pourquoi il a des problèmes dans la société donc yooyu mooy. nga def nguur ba jeexal 12 ans. régler woo problème askan bi. voilà il faut te poser des questions il faut te poser des questions on ne le fait pas. on va dire non on a perdu le pouvoir parce que Karim Wade moo tax ñu ñàkk pouvoir bi et tey si le parti au pouvoir bu ñu ñàkkee ñu ne Macky Sall moo tax ñu ñàkk pouvoir bi non mais parce qu'ils n'ont rien fait parce qu'ils n'ont pas appris donc def comme. promesse c'est que le Parti démocrate sénégalais et ses alliés nañu xeex jusqu'au bout mais fasiwuñu yéene yàqal dara kenn Sénégal iñaanuñu kenn 19 candidats yi ñu ngi leen souhaiter bonne chance ku ci nekk nga def li nga war a def mais ñun ñu bàyyi ñu tam ñu bay suñu waar suñu wàll ci ci ci ci ci réew mi li ñu war a def ak li ñu gëm ne lii moo baax ci réew mi ñu def ko mais sans animosité. xeexuñu kenn contre ñu kenn suñu droit rek la ñu défendre. d'accord vendredi la cour suprême di def audience publique ci recours yi ngeen déposé foofu muy euh, euh, li ngeen attaqué les décrets yi. les trois décrets la les trois décrets du président alors lan ngeen di xaar ci ci audience boobu est-ce que am ngeen déjà ay écho favorable parce que am na lu ñu jot a dégg. démb mais yow dam lay dam lay bàyyi oui oui les décrets euh, ngeen attaqué est-ce que am ngeen xam nga tant que cour suprême réunirul mënuñu wax dama doon ree parce que dama ñëw rek ñu commencé di wax ne cour suprême cassé na affaire yi mu am fake news yu bari <laughs> alors que euh, boo déposé ba pare dañ lay jox benn kayit mooy commandement assignation nga war a dem jox da ngay jaar ci benn huissier huissier bi dem jox ko l' agent judiciaire de l' kooku indiwaat ko nga déposé ko ci conseil constitutionnel ñu soog a enrôler l' affaire donc je crois que tey lañu ko enrôler donc avant li ñu doon wax yëpp ay wax la donc instant bi kenn mënul xam eh, c'est que les juges vont décider mais ñun yaakaar nañu ne li ñu wax loolu ñëpp d'accord nañ ci yoon dafa wax ne eh, période campagne électorale 21 jours la campagne électorale bi du mot 21 jours parce que bu ñu xoolee ñi bari dañuy wax ne est-ce que ñii ils ont intérêt à ça du ñu ay candidats et cetera loolu c'est ay waxu ñi xamul la ñun demuñu foofu en tant que candidat dañuy dem foofu en tant que responsable parti politique parce que ñun dañu am cër dañu am mission ci société bi mooy fexe ba sunu militants yi ak population yi nañu fexe naka la ñu mën a def pour bokk tey tey boo voilà élection boo xam ne dañuy gattal lépp la date dañuy dañuy réduire date date bi yow boo nekkoon liggéeykat il te faut un mois da ngay déposer demande pour absence dans un mois mais munoo jog rek une semaine nga ne sa employeur may ma congé damay dem campagne wala damay dem voté ji donc c'est la raison pour laquelle la, le, le législateur prévoit 80 jours, 80 jours pour que tu puisses poser say congé donc ñaari décret ngi noonu décret bi fixé campagne bi bi fixé date bi bi convoqué le corps électoral le ak bi fixé le début de la campagne donc ñetti yooyu la ñu attaqué te ñu yaakaar ne sa ne répond pas su fekkee yoon rek la ñu wax dañuy may ndam te su booba affaire yi moom day day day tas kon yéen jàpp ngeen ne processus électoral bi dañ koy arrêté. waaw su yoon dogalee. waaw su yoon dogalee te foog naa ne yoon loi électorale waaw ak constitution bu Sénégal bien sûr parce que ni le conseil constitutionnel ni le président de la république ne sont au-dessus des lois sart yi ñoo gën a foor moo gën a fort président de la république moo gën a foor conseil constitutionnel. su sart amul nag comment se fait-il que euh, les les juges de Ziguinchor. Mm -hmm. de Dakar. oui joxoon seen. Euh, Eh, pour réintégration Sonko ci liste électorale bi état exécutif bi dëgg ci tànkam na du ko def c'est de l'injustice c'est de l'abus de pouvoir abus mais boobu la ñu casse instant bi waaw waaw tamit il faut être cohérent <laughs> fekkee ni yow mhm. parce que li ngay wax nii yëpp am na cause mhm. violation de loi bi surtout sur la durée di campagne mhm. ñëpp xam nañ ni c'est à cause du président il a fait de bon gré parce que xam na mën na nekk benn xeetu Euh, pexe. wala njuuj pour may leen ñoom lu ñu attaqué. non pour sax ma parce que Macky Sall il a l'art de faire la guerre utiliser les autres pour soi-même mais du ci fekk. waaw <laughs> mais mais mais sëñ bi léegi yow yow dañuy dem parce que. Ah, mm-hmm. il y a l'exécutif il y a le parlementaire il y judiciaire mais il y aussi le peuple. oui bien le peuple il faut mm. les respecter quoi. Mm. parce que actuellement l'économie depuis deux mille vingt et ba léegi Sénégal demul taxaw. Mm-hmm. demul dikkul quoi. est que yaa ngi dañu tam ne léegi il nous parce que le jour où le Macky Sall arrête les élections à dix heures di commencement la a été une choc ouais. au niveau di peuple ko tu vois parce que dañu ne ok fii mën nañ def erreur folli fal mais au moins dinañ la bàyyi sa mandat nga doxal ko ba mu jeex mm-hmm. bu ñuy mën a retraite xam nga Ablaye Wade il a été honoré bañ ko folle ba muy dellusi dañ ko teeru aéroport teeru bu waa honorable ba pare naan ko góor góor gi baal ñu dañoo juumoon. Mm. góor gi baal dañoo juumoon. tamam mais on a vu que 2019 il a comploté sous le euh, sous le dos du peuple. Mm. avec euh, le protocole de Conakry tu vois. mais qu'est-ce qui a empêché le peuple de voter largement pour euh, l'opposition bon ok le le le. il y avait non maa maa ngi jégalu rek pour bañ a ubbiwaat parce que vas-y vas euh, euh, bi nga jàppale woon. Mhm. quest que qu'est-ce qu'il nous a dit après les élections de 2019. ça fait xaw ma 18 mois maa ngi wax ak le président Macky Sall. Mhm. avant même les élections. waaw <laughs> même di ko. muy dugg ci gouvernement. ba avant muy ah, dugg ci gouvernement donc même avant les élections de 2019 man je me suis posé des questions est-ce sa sax Idrissa Seck moo jëloon deuxième. tu vois que est-ce que du lu ñu organiser. est-ce que du lu ñu organiser mu jël deuxième parce que Sonko jël troisième comme ça Sonko du mën a kaas parce que doo jël troisième di fa jéggi di attaquer état te yow jëloo deuxième tu <laughs> non lépp ay pexe la parce que. fii non non xaar ma wax lu tax defuñu problème. et puis ah. yéen instance yu instance boobu ki yoroon ki yoroon je ne sais lan ci euh, parti réew mi. Mhm. xaw ma je ne sais pas mais dafa dafa dafa daf kenn gisu ko en quelque sort am na benn responsable réew mi bu yoroon xaw ma euh, élection kiiw élection yi quoi maanaam ki yoroon résultat yi ki nga xamante ni moo yoroon seen résultat yi pour mën a xam ñaata pour pourcentage ñoom la ñu am tu kenn gisu ko le jour du le jour ba nga xamante ni parce que on avait même demandé à Idrissa Seck pour mu génn manifester wu ni moom jël na premier parce que moment boobu Idrissa Seck bu teeloon génn daal ne jël na premier Euh, avant wala deuxième tour day am avant kon Benno Bokk Yaakaar di génn naan am nañ cinquante huit pour cent dina affaire bi dina am équilibre ko mais ce ce qu'on ni nga xamante ni moom moo moom moo am ba am mooy que instant suñ toll nii pour man Macky Sall dama ko jàppee les erreurs les euh, conséquences des erreurs du parti démocratique sénégalais quoi pour man Macky Sall a été toujours un accident quoi